نرى المنى من مشتر منه إن الباهدي نارا من سعره أي ستار أبدا كما له خدما يهواه أوتارا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi amaan nañ mbégte toog ci barab bii nga xam ne barabu fajukaayu aajo la barab bii nga xam ne ca la sunu jàmbaar ja nekkoon di sëriñ bu Mbàkke moom xaadimu rasul gane àdduna ci juróomi fan ci weeru koor liggéeyal yàlla ci alxuraan wuutu ci sëriñ Tuubaa ci jàng ak jàngale ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor dëppoog laylatul xadar sëriñ bu delluwaat àjjana bis boobu nag la njaboot gi toog di ko fàttaliku ak xasida ak salaatu ala nabi ñu delluwaat nag ci Serigne Touba Cheikh mamadou Mountakha mi nga xamne moy borom keur gi la jaat ko ndigal mu jox len ko Serigne Cheikh Ahmadou mbake ànd ak rakam yep nak ak talibe yi ak cheikh yi fas ko yene wote di jotali kaddu Serigne bi nga xamne moy sunu jeewriñ ci ke Serigne Souhaïbou ñu de ko ko xole Serigne bi wax ne mi ngi nuyu bokk yep di len jotali ay cantam ci li wessu lépp. te di leen fàttali bis bii nga xam ne moom amul dara lu gën a rëy sëñ bu ndax moo ko boole ci sëñ Tuubaa kon nag bisub sëñ Souhaïbou bu ñëw na mi ngi koy yëgal ñi ko bokkal ñëpp di ko yëgal ñi aju ci moom ngir sëñ ñëpp di ko yëgal ñi bokkal bokk gi ñépp di ko yëgal bokk jullitam yëpp gannaaw bu ma yebalee ci sëñ Muntaxaa nag laaj ndigal ndax li ñaan di baax baax li jàng alxuraan di baax baax lu mu mën a doon ci àddina nun duñ ko def te amuñ ci ndigal rawatina at yii ni mu demee woon ba tax kenn ku ne toog sa kër jàng alxuraan kon laajaan nañ ndigal sëriñ bi ba xam sañ nañoo dajale mbooloo mi fii mu joxaanu ndigal ne tabaarakallah am ngeen ci ndigal mën ngeen ko def na ngeen ko daa defe loolaa waral nag mu woote waat jataay bii ngir yëgal bokk yëpp ne màggal gi danañ ko def ren incha allah mi ngi sant ñëpp nag di ñaan nag. liggéey bi sëñ Souhaïbou bu liggéeyal Serigne Touba képp ko ci jàpp képp ko ci ñëw képp ko ko ñaanal ak foo mën a ne yàlla doon sa pajug aajo adduna ak àllaaxira mi ngi ciy woo bokkam yëpp bàyyiwut kenn. di ko yëgal ñi nga xam ne nag ñoo ci ëpp ëpp solo ci yëf mooy jànkati alxuraan yi sëñ daara yi seeni daara nañ jàngal sëñ Souhaïbou bu lu mën ci ay kaamil jox ko ko addiya ak daara yi kaamil yëpp fuñ mën a ne ci këri sëñ Touba yëpp ak dëkki sëñ Touba yëpp di ko yëgal bokk yi mu bokkal sëñ Touba yëpp it bàyyiwut kenn ànd koog ñoom niñ ko àndi woon démb ak tey di siyaara bokkam yëpp di leen jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ Abdoulaye Diouf dafa wax ne mi ngi soññi boppam mi ngi soññ képp ku aju ci moom góor ak jigéen amul dara loo xamante ne bii tolal na ko ni bis bii di soññit bépp seex boo xam ne danga aju ci kër sëriñ Souhaïbou ak foo mën a nekk di sakku nga soññ sa mbooloo góor ñi ak jigéen ña di soññ itam bépp taalibe moo xam da bu takk der la moo xam daa aju ci kër gi nu bokk nag waajal bis bi te waajale ko ni nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi muy tàmbali njàngam alquran mi ak xasaayid yi te di ko sellal ak istixfaar yi ak saatu ala nabi te di ko sellal te di ko hadiyal sëriñ Suhaybu di fàttali dongay taalibe fàttali taalibe yi moo xam ñu takk der moo xam ñu tëkku der nañ ni seen bopp soññi góor ñi soññi jigéen ñi te xam ne noo war a taxawee bis bi dalal gan ñi lu di liggéey noo ko war a def ba gan ñëpp yow nu door a dellu fi sëriñ bi mu ñaanal nu comme niñ ko baaxoo defee rek xam ngeen ne juróomi fan juróomi fan ci weeru koor yi fu mu agsee danañu jox ndigal nun njaboot gi nun tay bi ñëpp ñu ànd taxawu bis bi kon nag ginnaaw bu ñu ndigal ci ñoom ndigal loolu ñu ngi koy jàllale ci mbokki bi yëpp di ci jiital nag mbooloo mi nga xam ne ñoom na sëñ bi dénk liggéeyu màggal gi muy comité d'organisation bi ñoom ñëpp ñu ngi leen ko yëgal ñu xam ne ndigal ñëw na kon nag nañ ko baaxo waajale nañ ko baaxo taxaw nañ xam ne nañ fa si am nañ pas pas yokk ko waaye bu ci dara wàññeeku nañ nañ nañ nañ nañ nañ commencé ndaje yi te yaatal ko ci tel bi ci tel bi yépp ci daayir yépp sant la leen baax na ci bisi weesu yépp ci taxawaay yépp dara desu ca kon dañ leen dañ leen soññaan rek ñu gën a góorgóorlu bisi gën gën ko waajal baax baax moo xam ni ma ko wax rek fii ci biir réew mi ak yi nekk bitim réew xam ngeen ne ci bitim réew sëriñ bi joxoon na ndigal Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké moom moo ko moo moo yor taxawaayam foofu màggal yi ñuy def ci bis bitim bitim bitim yëpp moo koy def moo koy def ànd ko ay doomam am na ci foo xam ne ca charde na ñaar sëñ Saliou Mbacké moom sëñ Saliou Mbacké moo fay nekk ak yeneen barab yu bari bari yoo xam ne danañ fa def màggal gi te xëy na moom ay tànkam mënut a jote fépp waaye fu mu ci fu mu fi jotewul am na am na ci ay doomam yoo xam ne danañ danañ fa danañ fa dem kon ñoom it suñu bàggal neen jox ndigal ci màggal gi ku ci ne fa nga ko daan defe na nga ko daan defe rek nga defe ko noonu kon loolu ko soññee bu baax a baax liñ ci liñ ci gën a fàttali di ko gën rek mooy bis bi nga xam ne daan nañ ko def di ko waajale màggal gi te muy bis bu am solo muy bis bi ñuy amal amal mbaleem ci dëkk bi loolu jàpp nañ ko war a nekk eh, ajjuma benn fan ci weeru avril muy le premier avril loolu it bis bu am solo ndax ku ne xam na ne ki ñuy ki ñuy defal bis bi ku set la woon ku bëggoon set la woon kon bis bi nga koy defal loolu lu ñu ci war a bàyyi xel la moo tax sëñ baa ngi ko jox na ci ndigal te mi koy soññee fii ci fii ci fii ci fii fii ci kër gi fii ci Madiane ak fépp bépp barab boo xam ne rek euh, doomu sëriñ Sohaybu bu nekk na fa ñu fay ñu fay amoon màggal gi ñu soññee bale moom nañ ko daan nañ ko daan defee bis boobu ak sa ñëpp ña fa nekk génn setal setal barab yooyu bu ko defee it fi ñu ko barab ba ci ne danañ fexe ba fa war lépp ñu yóbbu fa bam bam set mooy bis bi nga xam ne moom kon mooy jiit màggal gi la ci des si màggal gi ni ko sëriñ bi waxee rek moom bu ñu ci àggee loolu mu wax ci daaray alxuraan yi ak ci daaray yi nga xam ne màggal gi jub see danañ danañ danañ danañ danañ jokkoo ak daaray kaamil yi ak ak mm, daaray alxuraan yi ni bi diglee woon ànd ko waa répété bi ñu jëtal suñ suñ si amadou basi moom si amadou fall ak si amadou basi moom si abibu ak mboolem yeneen kuréel yi yeneen kuréel xasit yëpp nañ ko baaxee ànd ànd ñoom loolu suñ bi soññee na ko léegi Euh, di di di soññ nag daayira bi nga xam ne mooy daayira tournée si son bi di jaay gis lu xulóob nga xam ne euh, sëñ Abou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad moo ko jiite mi jataay bi euh, ñoom la sëñ jox jox joxoon ndigal ci loolu wàllu ko li commission culturelle bi ñoo ko ñoo ko yor ci màggal ñooy tax njàng ba alxuraan njàng xasida mi mbooloo ñi fi ñëw di andi ay ay ay ay limi njàngit bu ñëwee ci penc ca baas ba danañ danañ danañ fekk ah, ñu ànd ko ñu ànd ko it nag ak fédération soppé sëñ soñu bi nga xamni sëñ abou mbacké daal sala mako jité kon sëñ mbagi leen soñu baax baax ñu ñu taxawu ñooñu euh, dalal leen topto leen euh, ba ba fi ñew ci jang alcorane yëkëte wala jang qasida nga am bar bu sel bu dal bo xamne dang ko def ci nañ yalla bis baa ngi noonu juróomi fan lay doon ci weeru koor dañ koy yendoo jàng alxuraan yendoo jàng xasida ba ngoon jot sëriñ bi génn daje ak taalibe yi ak bokk yi ñaanal leen yeewi leen ñu waajalaat déwén ñoo ngi ñaan ku teew ci bis bi yàlla na faj say aajo ci darajey sëriñ Chouaïbou bu barkeb Cheikh Ahmadul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.